dellu siwaat nañu comme ni ñu leen ko doon waxee chaque fois cette année ci waxoon nañ leen incha allahu rabi ci wàllu sport dinañ leen ci indil lu am solo yéen ñi nga xamante ni yéen a ñuy topp vraiment ci seen chaîne Lougaré TV tey jii euh, ñu ñëw dellu si tey ci basket bu ñu nee basket nag euh, dañuy wax banlieue banlieue fii ñu nekk nii mooy école 16 école 16 bu ñu fi nekkee euh, tey jii ñu fekk fi benn centre formation bu yàgg bu ñu yàgg ràññee ci basket 16 basket basket club mu ngi nekk fii ci Géejawaay marché Sam. commune Sam Notaire dañ fi fekk nak ki nga xamanteni mo yor école bi depuis euh, bi ñu xamee 16 basket ba légui ñu koy dégg tay dañuy ñëw waxtaan nak ki nga xamanteni moy coach bi yoré centre formation bi fekk fi aussi ay dirigeant dirigeant yi nga xamanteni ñoo gérer école bi bu baaxa baax dinañu wax bu baax li ñu xamul won ci basket ci banlieue bi 16 basket club yan jour le former 16 basket basket club yan trophée la am. tey jii moom moo ñu ko mën a leeral moom mi nga xamante ni mooy Grand Laye ñu ngi lay nuyu bu baax euh, di la jaajëfal di la yi nga nuyu ñi nga xamante ni ñu ngi seetaan ci seen émission bu a baax mooy wàllu basket. waaw ñu ngi lay fay di rafetlu seen ñëw ci école bi parce que lii daf ñuy may lu bari parce que lu yàggoon nañ ko bëgg ndax li ñuy liggéey pour mu sori il faut que seen genre yi ñoo mën a ñëw di ko wan doomu aadama yi hmm. bien vrai que bu nit ne gisuma yàlla daan gis naa. te gis naa sunu borom da koy wane ñëpp gis ko mais dafay rafet tamit nit fekk la ci li ngay liggéey jël ko wane loolu dañ koy saluer di rafetlu tamit seen sit bi Lougar TV di wax ne kontaan nañ trop vraiment nga fekk ma fi tamit ak suma frère ñun fi ay frère lañ Cheikh Mbacké moom mu nekk ñoo fondé affaire yi nii muy moom gis nga fi keroog Ahmed Aïdara ñun ñoo ko fondé ndoo xam nga ay ñoom Moustapha Diop ay ñoom Youssou Tall Chérifo ñun parce que ñun ñi ni ñuy nekkee xale ba nekk mag ñun ñooy nekk kii heure bu jógee vacance États-Unis fii lay ñëw taxaw xool booy mu metti mu jënd leen ay dàll ñëw toog di leen assister bien vrai que xamuñu seen papa xamuñu seen yaay mais ñun xooluñu li ñu géejawaay mën a apporter dañuy xool lan lañ mën a apporter géejawaay ba tax na tamit vraiment moom it mu fekk ñu ci diñ ci encouragé xam nga lii yombul nga jóge Amérique bàyyi lépp ñëw toog chaque année nga koy def boo ñëwee jël say propre moyen di ko jàppale ay xale yoo xamante ni da ngay bañ ñu taxawaalu ji di suivre seen jàng di leen accompagner ndax fii nombre bu baree fi nekk ay centaine booy mais dañoo canaliser seen emploi du temps heure yi ñuy jàng ak heure yi ñuy def basket mu nekk étude sport di leen yaraale tamit ci si ay valeur di leen yar seen diine ci seen comportement ak nit nan la war a mel bon ñu ngi leen di jàngal basket mais ñu ngi leen di jàngal management looloo waral nag vraiment ñu mel ni yéen bu ñu ñëwee vraiment dinañ kontaan toog ci seen ñëwaay fii. est-ce que mën nga ñu mën nañu xam école bi ban année nga ko formé ban ban année nga jàpp ni école bi war naa ko mën a samp ba mu doon centre formation ba ñu mën a xam mu mën a bokk ci milieu bi nga xamante ni tey ñu ngi koy wax ci wàllu basket ba ñu ràññee muy 16 basket. waaw waaw euh, mën naa wax nag yàgg na. xam naa ne booy xool bu dul ay deux mille deux mille ay deux mille deux ay du yàgg na mënu ma ko sax à peu près parce que avant ñuy euh, def ay équipe du jeu championnat ñun fii di entraîner yaa ngi dégg parce que tey jii boo daan xool ay temps ay jamono xale bi buñ nee ko kaay basket géejawaay day xaw a doy waar dañ naan la géejawaay non non kaay ma yóbbu la dikk kaay ma yóbbu la jaraaf mais complexe boobu dañ na. ndax ñun tey jii ren jii ñoo éliminé dig demi final yooyu yëpp bopp dóor nañ ko final euh, dig dóor nañ ko final ville de dóor nañ ko final ay jaraaf dañ leen di fekk kër jaraaf di leen kon léegi loolu basket bi dëkkatul fenn te tamit léegi du question ay banlieue bi nii wala léegi léegi yëpp benn la Dakar tamit ñu leen di ma leen di saluer à ñu nekk ay nit yoo xamante ne vraiment boo waxee sant de bopp xam ne kuy gis ni ñoom ñoo njëkkee yi GIA tamit nga daan fekk ay ñoom André. jaraaf ay ñoom Léo ba Koulibaly ah mais tey dem na ba benn moment année yëpp ci ginnaaw 16 basket la ñuy nommé meilleur centre de formation petite catégorie man mi nominé nañ ma lu bari meilleur entraîneur Sénégal petite catégorie bari ji maa ngi direction technique nationale ci U16 yi yooyu tam Moustapha Gaye indi ma ko ma koy salué au passage comprendre na kon tey jii kon banlieue bi léegi ñu ngi ciy liggéey yoo xamante ne vraiment xam nañ ne. defuñu lépp mais ñi ngi jéem parce que gagné nañ coupe yëpp ñu gagné nañ championnat gagné nañ coupe régional gagné coupe de la ligue ren di rek tout récemment ñu nag ay jox lañ yóbbu booyi mais avenue de Fass moo leen mujj gagné mais booy xool ci gagné bi dañ naan dañ ci gagné manqué de expérience ndax avenue de Fass ñoo dem ren ba deuxième division demi-finale xam nga équipe boobu lañ ñëw joué ko en junior may salier tamit sama booy leen féliciter parce que ay cadet la bu ñu surclassé xam nga centre de formation da ngay mën a jël mini basket bi indi minim jël cadet bi eh, eh, jël minim bi indi cadet jël cadet bi indi junior pour ñoom ñuy compétir ndax gañe bi sax ay coupe yeeg yooyu dañuy dab mais duñ suñu suñu objectif waaw compétir bi dañuy ñëw di former booy pour ñuy nekk niveau de national ak international loolu butu 16 basket la. siis basket nga amna solo euh, comme ni nga ko waxe legui trophée yi fay da fay jaaru nga leral ñi nga xam ni ngi seetaan ci yeen catégorie le siis basket di gëna am ay trophée waaw yalla dogal na na catégorie yëpp minime yi jël nañ ko fi junior yi jël nañ ko cadet yi jël nañ ko ren ji boy xol cadet bi dañoo naroon def sa ben lo xamanteni vraiment dina dina dina doy waar ndax cadet bi boy xol dañ ko forfait xam yooyu tamit xam naa may waxaat gars yi tamit ay Ablaye Diop ñu xoolaat parce que xale bi munul añ ay quinze heures nga programme ay match quinze heures nga am battement 15 minutes nga regroupe xale yi xam na situation yi fii vraiment ma ci salué waa passage monsieur le maire de la ville de géeje Guédiawaye Ahmed Aïdara ndax tey dafa def geste bu boo geste bu noble yaa ngi dégg ñuy ñëw di def sport basket lu mel ni final mu ànd ak ñun ba Marius Ndiaye nekk honorable député ba pare nekk maire ñëw ànd ak bi loolu ñu ko daan gis seek ci benn maire doo ko def na ko fa tout récemment muy Barthélémy Diaz mais musul am géejawaay maire bu jóg wàcc non ba pare jëkk propre moyen am mhm. luye ay oto yaa ngi dee jox regroupement xale yi pare mu yëkkati cinq cent mille jox leen na leen def leen kii xam nga te yooyu ñii ñoo daan sonn ay ñoom Cheikh Maguette ñu daan jóge Europe kii tamit bu ñëwee ne xale yi pour lan amul dakaar amul lii mhm. nañ leen valoriser def leen ci ay valeur ndax président de la république dëkkul Géejawaay dëkkul Dakar dëkkul Matam dëkkul fii déedéet ci ñibbti lay doon ak ci jëmm ak gëm-gëm comprendre na ci objectif boobu la ñuy demee di xam ne tamit vraiment coupe yi ñuy jël ak affaire yi ñu du suñu objectif même ren di boo xool demaat nañ ba final année yi yëpp boo xool bi ñu formé équipe ba léegi amul année bu ñu toog demuñu demuñu final mais ñun centre de seize basket centre de formation la xam nga centre de formation la gunge xale bi jàngal ko ay valeur jàngal ko ne da nga war a jàng jàngal ko ne danga war a am yow xam yow yow yaay kan xamal ko ne tamit bu ñëwee sax am na sama saak am na ay dix commandement mini basketteur yu ci nekk yoo xamante ne boo duggee moom lañu lay jox pour nga xam lan ngay maramel booy tamit ñu ngi leen waaw buñ teree avant ñuy démarrer dañuy julli ba pare dañuy ñëw ne leen da ngeen di julli parce que moo xam seen di xam ne dem nañ Italie 16 basket dem ngay gis ne booy duñ dégg nodd xam nga mais teewul xale yi ci leneen tàggat da ngay gis dañuy jéem a natt heure yi ñu dem kii quoi xam nga affaire bi nekk loo xamante ne vraiment mu tiima ma ne booy bi sax suba mën na ñëw fii mais bu ñëwee ci dëkk bi du dégg noot du dégg ay affaire mën na bàyyi diineem mën na dem ba gaj affaire bi beneen diine gañe ko te war ko danga te léegi booy xool xale yi ñu ngi leen di jël basket bi ñuy nekk ay xale léegi xale boobu bu demee voyage yi tàggatoo ko ci diineem bu demee mën na koo bàyyi te su ñu day nekk beneen xale te bu boobaa yow dina dina bu yàggee ñun suñu valeur day wàññeeku day wàññeeku moo tax ñun dañuy tàggat ci booy bi di lépp dañ lay punir bu sa jàng wàññeekoo doo ñëw gis nga tey jii ñun ñëw ñu leen njëkk a respecté toog di am na ci booy boo xamante ne mi ngi ren mi ngi doon joué GIA mooy coro mooy xale mu nga fekk fii sànq ren jaraaf moo ko jënd am ñoo xamante ni tey ñi ngi woon ISEC dig moo leen jënd am ñoo xamante ni ñi ngi extérieur maam Kumba au passage gis naa ko muy sol numéro 10 dig waaw demoon na Chine. am nga loolu aussi dafa am solo parce que leeral ndax am na ay champion yoo xamante ni yaa leen formé ñu génn fii ci 16 basket parce que dafa leer ñu koy dafa dafa jar ñu koy leeral wax nga ko léegi. di féliciter monsieur le maire euh, honorable député Ahmed dara dafa am solo tey sa gox di di di di di dem ci benn compétition génn nga gunge ko jàppale ko vraiment loolu la ñuy xaar ci moom di wane ni moom mi nga wane ni doomu banlieue la loolu la ñuy xaar ci moom di ko félicité waaw waaw waaw Cheikh tourné gis xam nga dirigeant dafa am important dafa am lu muy joué ci équipe kii même bu ñëwee vacance du ma bàyyi ma wét day ñëw parce que mënoon nañu découragé mm-hmm. parce que fii dafa metti mais dañuy ñëw jege la jël seen propre moyen di la ko jox bu ñuy ñëw jël lu gën a correct États-Unis jëndal la ko mm-hmm. ne lii la nit di war a sol gis booy xool terrain bi nii dañuy nodd waaw moo bon dañu bëgg pause ndax nodd xaar nodd bi nodd bi jall quoi dañuy taxaw bàyyi lepp luñ doon def bañu nodd ba paré ñu soga a li ngeen liñ doon def loolu amna na solo dañuy dellu siwaat rek wax nañ ko yan ñan ñi nga xamanteni ne ñoo génn fi ci école bi euh nek tay ji mën nañ ragné ñu nek ay jour yu mag soit que nekk Europe di compétir wala nekk fii ci championnat bi ci biir réew mi di compétir comme ni nga ko waxee sànq est-ce que mën na mën nga ñu wax yow en tant que coach yan joueurs ñoo fi a génn ba doon ay champion. waaw bëri na parce que booy xool bu fekkee côté jigéen ñi. Mhm. Aminata Camara ñëpp xam nañ ko moom mi ngi doon joué Duc nekkoon capitaine équipe nationale U18. sama cousine la xam naa ci dara. waaw Aminata Camara moom centre bi fi la génnee boo jëmee ci côté beneen bi ay xadilu juróom fi lañ génne ak Coro Diop mi ngi fee.

boo jógee ci Maam Kouma nga dem ci Kouro Sey mi ngi nekkoon Isaac léegi mi ngi France di fa basket nga dem jóge ci foofu nga dem ci Mariama Mariama Diallo Mariama moo nekkoon fii mais après dafa génn moom Guinée la mujj dem daa war <laughs> Guinée Assou Mbacké bari nañ du dañoo bari de waa góor ñi am na maam Abdou Aziz mi ngi mi ngi douane mooy seen numéro quinze bi fii la jóge am na eh, Moussa mbay mi ngi dëkk am Yoro mi ngi mi ngi Mermoz xam équipe boobu ak nu mu waaye waay nu mu tuddati euh, euh, Tafa Ahmed Diaw mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi dikk comprendre nga amaan na tamit ay beneen baa ngi fàtte Pa Aline mi ngi Espagne di fa joué ak euh, Serigne Ndiaye mi ngi Real Madrid di fa joué Abdou Gueye mi ngi Amérique <laughs> moom démb équipe maam laa soloon ak ñi ak Ousseynou Laye moo nekkoon walaas bu dikk. mooy booy buñ gool boobu ngay gis mën a sumat mi ngi France daa jàmm gëj naa ko gis <laughs> dañoo bëri ay général mi ngi Amérique dañoo dañoo macha allah bari nañ quoi ah, mais kii sax au bi bi muy def testam Cheikh Mbacke mi la fekk xam nga assen ah, seen anglais yi xóot lool mën na koy mën ne ko jaay course bi maa ngi sa ginnaaw ma doon ma doon communiquer ak Antonio ma koy nuyu au mu jël mu jël booy booy bi am na fa bag vraiment daaw moo nekk seen meilleur joueur Espagne bëri nañ quoi booy xool bëri nañ boo yoo xamante ni vraiment ak Abou ñu ngi eh, Canada vraiment ren tamit am na ay boo yu jóge woon Italie affaire bu ma gën a marqué def si camp yaa ngi dégg ñëw def fii camp basket am ku jóge Amérique. voilà dinaa ñëw ci loolu parce que lim nga fi ay champion lim nga fi ay ñi nga xamante ni yaa leen formé ñu génn ci wàllu basket tey jii euh, ku ci am dangay dimbali sa bopp dimbali say waajur de première est-ce que ñi ngi bàyyi xel école bi matériel bi ñi ngi ciy jàpp ku ne xam na ne yor ay xale fa metti gis nañ fi ay bal gis nañ fi ay euh, li ñuy étiré wo gis nañ fi vraiment ay mayo est-ce que ñi ngi japp deug deug ci kom kom école bi. wa nak gis nga nak côté bobu tamit ndaysan da nga fekk sang ba ci waxtaan ak Cheikh xam mom da bëgg lu rafet <laughs> day rafetal na man non dina baax xalé bi ni affaire yoy léeg-léeg man da ngay mer né xalé bi lan motax mais xam nga tamit xalé bi ndaysan ma ma ciy waxaat waa entraîneur yi wërsëg yalla mo koy jaarale ci nit bu ko jaarale ci nit du ya mom wërsëgam da koy neex rek mu jàppale la su ko neexé du la jàppale mais xale yi xel nag sunu borom moo koy def ci nit léeg-léeg am xelam ñëw mais yàlla na seen xel ñëw bañ defaat gifin mbaag ndax gifin mbaag de seize commencé na gifin mbaag de seize mooy ñoom Cheikh ñi ren am nañ benn match gala bu mag te yemu fa vraiment ñoom ñi ñëpp ne nañ dañ koy def annuel muy képp kuy doomu seize basket wala ngay doomu géejawaay parce que seize basket mu ngi juddoo ci GBC équipe bu ñu naan GBC ñëpp fa lañ nekkoon mooy géejawaay basket club xam nga tamit loolu li ñu gën a tardel ci géejawaay ci la bokk benn équipe rek bu nekkee géejawaay développement géejawaay mënut a am tey coupe du maire war na mën am banlieue tey am na GBA mi ñi ngi géejawaay am na diisoo ñi ngi géejawaay am na jimi basket ñi ngi géejawaay ah am na olympique ñoom ñi ngi géejawaay léegi équipe yooyu bu ñu dajalee parce que créé naa benn tournoi bu tudd talent banlieue mais talent banlieue boobu ñi ngi waxtaan ak monsieur le maire di ko ñaanal comme mi ngi soog a toog defal ko ko coupe du maire léegi coupe du maire boobu dina tax léegi comme dakaar am na coupe du maire banlieue bi dem ay coupe du maire xam nga parce que tey jii am na suñu benn xarit ma koy nuyu au passage Xaadim Bamba Sey moom comme ñu ñoom Cheikh def lay def day jóge ay kii gis nga ballon bii moo ko indi pour boo yi gën a ndaw xam nga jox leen ko def ci ay dix ballon indi ko ay may équipement mu may leen ko pourtant moom moo defar terrain bopp mais xool na ne banlieue bi ñun ñu ngi liggéey te amuñu ay moyens moo defaraat terrain bi. yaa ngi dégg kii nii dañ daan ànd marché jeudi mu jël ay dàll ah yëpp sëriñ ma koy nuyu au a ni ko wax dafa dara dul mu ne ma nuyul ma Cheikh Mbacke borom jaaykatu dàll yi dañuy jënd dàll yëpp jox leen ko ba ci xale bi nekk juillet kii jëndal na ko ay dàll épaulé ko te pourtant xamul papaam xamul yaayam xoolu ñu tamit li xale bi am dañuy xam ne nag ëllëg defar nga koo xamante ne ëllëg mi ngi jariñ dara ci société bi man noonu lañ ko jàppee mais bu ñuy gifin mbaax nag di ñëwaat di jàppale centre bi du yàq dara te xam naa bis dina jot seen xel dina ñëw. <laughs> kon nag sama gars yi dégg ngeen li course wax ñoo leen jàppaat ci centre formation bi parce que da ngeen fi jaar aussi te yàlla may na leen wax nga ko léegi ku nekk boo amee sa kër nga yóbbu mais fàttaliku leen fa ngeen jaar parce que aussi lu ñu mën a wax boo bu dee école la di nga fàttaliku professeur bala jàngal di nga ko di ko fàttaliku kon nag fii école la comme lépp bu kon nag da ngeen jàpp ci centre formation yi mooy tax basket di gën a sokkaliku fii ci réew mi mm. ñuy gis champion yu mag a mag a mag kon ni nga course waxee bon ngeen bàyyi ci xel di wax ni euh, Euh, école bi daal yow amoon dara benn njàkkare boo xamante ni tey yaa ngi koy yaa dund fii yaa ngi jàngal booy tranquille amoon dara benn pression boo xam gars yi ñu la koy teg soit disant que tey commune bi wala ñu lay teg ay taxe wala yooyu yaa ngi gisoo amoo benn jafe-jafe waaw non début bi nag xam nga ñun tey jii fii école bi xam naa ne dinaa la am am ay image yoo xamante ne dinaa la ko woon parce que bi ñu fiy dugg si fii métti woon na trop suñu ngor ak volonté mooñ ci bàyyi tey ji may sensibiliser doomu aadama yi niveau banlieue ñuy may jàmm gaa yi nga xamante ne dañoo dem daani doole Europe ba ñëw yàlla mooy doxee wërsëg ñu jàpp leen téye leen tey jii génération bi ñu ci bari dañuy sonn da am nit démb tey mu ñëw nga yaakaar ne yow la nga war a am moo la ko war a jox te xamoo lan lay daj fële su ñëwee yow da nga ko da koy mujj di écarter indil ko soxla boo xamante ne moom xam nga lan la indi mu am njaboot am famille kon indi fa fallait ko ñuy indiwaat seen xel di leen accueillir bu ñu ñëwee di leen jàppale. donte sax war nga mën a ay cadeau yoo xamante ne nga leen koy jël di leen ko jox seen xel di nekk ci yow comprendre nga beneen tamit fii nii bi ñu fi ñëwee yàlla dogal na ren directeur école bi fi nekk maa yoroon ay doomam maa yoroon tàkkos yi biir daal wakaam maa yoroon Habib mais bi mu ñëwee comment objectif numéro un mooy daf ma bëggoon génne maag Balla Gaye numéro deux yaa ngi dégg. fàttali fii école 16 la Balla Gaye fii lay entraîné. entraîné mu ne ñoom nañu parce que basket beeg kii jii nii xam nga yenn élèves yi lan moo tax ñëwuñu dañoo dem jouer sport scolaire. man tey jii yaa IEF bi makoy nuyu au passage Yaya kuli mom tey jii facilité na ma lu bari fi tay sama ben jour mom moko dem gérer ji arbitrage ay de lu makoy nuyu kon tey jii étude sport mo am partout dans le monde étude sport mo am partout dans le monde comprendre nga tey jii xale bi bu ñu tukki tay jàngaale mais bi ñëwé ñëwee waroon nañ mën defaraat duus yi ki installé lii panneau yeeg mais après nak directeur école bi xel mi ñëw na. parce que yaakaar na ñun bi ñuy defar lii defaruñ ko woon mais lii bu ñu koy defar tey jii ñun ñoo ko commencé mais ëllëg suñuy frère mën nañ ko égaler xam nga dina dem ba benn moment banlieue bi ñuy wax boo fi duggee di nga leen respecte ci lépp gis nga tey jii même monsieur le maire keroog bi mu fi ñëwee gis nga école mi ngi commencé doon dem mais nee na dinañ defaral ay làmp mais bi mu ñëwoon woon du ko gis ah yu bëri mu ne da koy jël en yenn xale yi mu ne nañ leen di jël booy jàng xool la ngeen toppatee loolu mooy boobu may wax tamit doomu géejawaay yi ñu man man du question ay pul mais nañ ko jàppale xam nga jeune bu ñëw ah ne man tey xooluma lan laa xamante ne man laa koy apporté damay xool li gox bi di jooy ma ànd ci ak ñoom tàllal leen loxo kon ne ko ñëpp jàppale mu nga xamante ne dañuy defar niveau de géejawaay di ci woo sportif yëpp nag lan xamante ne am nañ liggéeykat te liggéeykat boobu nañu ànd ak moom liggéey ku ci nekk li nga mën ci banlieue bi nga apporté ko sa bopp waaw tout di di di sensibiliser samay collègue entraîneur di wax ne petite catégorie bi ñu ngi yàqu parce que da nga gis benn xale bu ndaw ne mi ngi judd 2009 2010 jël ay liggéeyam fraude ko fu xale boobu boo ko defalee fraude mën na cee am carte d'identité bu amee carte d'identité déjà entrée en sixième perte na ko xale bi dem am benn niveau basket na yooyu catégorie nga jël ko daal di koy defaral jugement boo amee BFEM ñaaxam na ko. ba mais bac perte na ko te xale yi dañoo war a jëriñ seen yaay jëriñ seen papa nekk ay kilifa ëllëg ci dëkk bi mais gars yi dañuy xool résultat une immédiat résultat immédiat moom mooy damaa bëgg a gagné léegi léegi sport dafa laaj patience xale bi da nga koy indi à base di ko jàngal di ko tàggat ci comportement yëpp pour mu mën a nekk champion ëllëg parce que bu nekkee champion ëllëg Sénégal mooy gagné mais formation de base bi mi ngi commencé yàqu te loolu moo ko yàq. ñuy wax ne gars yi nañ bañ bàyyi xam nga ay kii moo gañe kii kee moo gañe parce que daal ren dama doon wax président ligue bi Samba Gueye ma koy nuyuwaale naan ko bu ñu demee ba ay kii parce que ñun demoon nañu Italie biñ ñëwee dañuy gis ne bu ñuy bu ñuy bu ñuy def récompense dañuy dajale équipe yëpp ñu bokkoon ci championnat bi yëpp ñooy tolloo même récompense bu boobaa yow kon boo gañeek boo gañewul yaa kii yooyu tolloo dañ xam ne lii formation de base la kon ñuy tallal loxo entreneur yëpp den wax nañ tàggataat xale yi ci seen comportement ak ci seen jàng di xam ne résultat immédiat du dara loolu daal leen koy ñaaxaat daal. lii am na solo coach su ñu ngi lay jaajëfal vraiment ah, di comme ni nga ko defee ci yow noonu lañu ko defee centre formation yëpp incha allah parce que cette année ci waxoon naa leen ko Lougaré TV moom dafa jug wan leen sport dara du leen réer dara du leen manqué ci yéen ñi nga xam yéen a ngi topp ci sport bi ah, dañ fi fekk nag kilifa muy seex Mbacké bokk ci ñuy jàppale jeunesse bi ah, tey jii li laay wax am na solo nga ñëw fekk un centre formation buy buy doxee nii ngay sa alal di leen jàppale fekk nañ fi mu am envie te loolu dafa am solo ñu mel ni moom dañ leen war di bàyyi xel parce que dañuy jàppale jeunesse bu géejawaay rawatina jeunesse bu àdduna en tout cas sëñ Mbacké dañ lay jox deux mots nga wax ci ay baat wax laay ni nga koy jàppale vraiment euh, parce que ñu mel ni yow dañ leen war di déglu bu baax a baax parce que dañu amal njëriñ askan wi. macha allah waaw macha allah gars yi maa leen di nuyu di leen ziar te di wax ne laay moom lu ñu boole du basket laay c'est mon frère donc ñun ñoo doon basketandoo comme nous mu ko waxee donc ñoo basketandoo petite catégorie fii ci stade bi GBC donc ñun ñëpp foofu lañ tàmbalee. donc bu mu ñëwee bi ma ñëwee je pense que laay mu ngi wax bon ay année 2002 2003 bi ma ñëwee Sénégal ma jógee États-Unis laay ñëw fekk ko fii muy commencé affaire bi ak ay difficultés. lu dëgg bon kenn jàpp ci moom kese ak ay moyens yu mu yor affaire yooyu donc comme c'est un ami bon lu may def fii tamit si terrain bi du dara dama koy def naturellement et puis volontairement léeg-léeg dañuy wàcc rek ma yeewu ñu am envie ma ne laay xale bii xoolal dàllam yi nu mu mel parce que dama jaar foofu en tant que sportif parce que dama doon yeew war a dem basket yi léeg-léeg du ma am dàll wala léeg-léeg dàll yu may yor day jeex ci suuf donc loolu bu dellusee si sama biir xel bi rek donc man du ma bëgg xale bi même su ma koy xool du ma bëgg mu biir loolu léegi-léegi rek ñu ngi si waxtaan man ak laay dama gis benn xale ma xool dàll yi ma ne ko laay kii dàllam ah. yaa bon boobu maa ngi def attrape niveau man ak laay pour ma xool ndax bu amul daal ma jëndal ko mais laay mun ma non bokk na ci xale yi ñu jox daal dimanche ci match de gala bi ma ne ko c'est bien loolu baax na et puis ma gën a neex si moom mooy day toppatoo xale yi nee naa ko laay say doom lañ xale yi bu ñoddu jotee dañuy dem jàpp fii 5 heures fii laay toog léeg-léeg parce que man bon am benn fréquentation bu ma ñëwee fii laay laay fréquenté ak sama benn xarit bu ñu wax galas bu yor fee atelier euh, soudeur donc foofu rek laay toog bu dul foofu maa ngi fii si laay loolu nag si jikko la. nit dang koy fonk si jikkoom donc jikkoom bu mu yor nit mënul joxe lu mu amul loy transmettre ci xalé yi dafa fekk lool mo nek sa bir donc man numa ma mom dafa yar xalé yi quoi donc sample beaucoup donc man fi la ñëw tok di setlu damay gis xalé yi dañuy julli bu noddu ñëw ñu tok même boy dugg ci nisa da ngay gis ñom ñep ñu dag lu ñuy def ñom par ben ben ñu lay nuy par ben ben ñu lay nuy donc vraiment machallah allah vraiment machallah parce que mom mom man nitu principe la suma ñewon fi gisuma la ma fi instant ni sa bon nekkatuma si banlieue bi maa ngi fële maa ngi tuxu mais terewul damay ñëw dafa mel ni si banlieue bi laa dëkk ba léegi te dëkkatuma fi donc maa ngi dëkk ci kaw mais terewul damay ñëw chaque jour donc si jikkoom la rek donc vraiment macha allah donc ñu ngi koy ñaanal di ñaanal xale yi vraiment ñoom ñi nga xam ni ñëpp bon man je pense que ni lay sax wax bu wax na wax bu am importance sànq xale yi ñun joxuñu leen dara pour ñoom ñu koy delloo si dañ leen jox dara pour ñu ànd ak ñoom moom daf ma koy wax chaque jour laay Cheikh mu ne ma Cheikh ñàkk a jàng moo yàgg mais jàng yàggul donc boo jàngee c'est pour toute une vie boo jàngul da ngay ànd ak moom tamit pour toute une vie donc xale yi nii ngay gis ni lu ñu leen di jox xam-xam la bon fu ñuy jëm ak moom loolu yàlla rek moo ko xam ëllëg bon même su nekkul sax ñu réussir ci côté sport bi mais yar bi xam nga sport dafay xel mu sell si yaram bu sell sport day defar esprit di defar lépp ba nga xam ne yow foo dem mën nga adapté wu. donc laay moom macha allah vraiment ñun vraiment amu ñu ngi koy bëggee daal vraiment c'est un ku baax la te fii bu ñu fi toogee waxtaan kafre naan ataay dugg ñu si problème mu kenn. voilà suñu génnee léegi la ñu am suñu wéccet mu néew mu bëri xeebuñu ko ñu ànd dem jënd si ay quelque daal bu ñu mënee may xale yi ñu may leen et puis toog waxtaan parce que xale yëpp tamit fii respect lañ fiy dox man gisuma fi xale bu réew parce que boo réew da lay dàq mooy exprime quoi. en tout cas moom dañ lay gërëm di la sant parce que gis nañ bi ñu ñëwee rek danga taf taf da nga abonné ci chaîne bi lan ngay wax ci ah, Lougaré TV cette fois ci li mu génn ñëw ci jeunesse bi vraiment pour wane centre formation yi bu baax a baax. non ñun dañuy wax ni lépp banlieue lépp lu doomu banlieue di def ñun dañ si gis suñu bopp xam nga ma la dañuy jàpp ne yow xam nga yaa fi indi télé beeg yëpp mais man dama jàpp ne instant nii lii suñu yëf la parce bu avancé tey par exemple lii ngay def nii bu avancé ben doomu way rek am si lum si jëriñoo mu ndaw rek dañ japp ne yow ñun nga ko defal parce que ñun école bi fi lañ bobu ay baraag la fi lañ fi lañ am na pas directeur bi am na directeur bu fi nekkoon bu ñëw ben jour ñu ngi waxtaan affaire yi ma expliquer ñun ko ñun fi lañ jàngee bobu ay baraag la fi donc fi lepp fi lañu fekk donc ñun gis nañ fi lu même terrain bi ni gis nga Bamba sey mo si japp defara ko tout ça mais logar TV ci kaw ci kanam ay eh gaay yi doomu bu gis émission bi ñëwal abonné si Louga TV nga xam ne suñu yëf la ma ne suñu yëf la ñun waa Géejawaay. wax ko ci anglais anglais anglais anglais. non baal ma bàyyi ko noonu si wolof bi. ndax sama mbokk yi dégg nañ ko jeex xam naa ne vidéo bi dina dem ba États-Unis sa gars yi ñu ngi États-Unis daf ko ci anglais ñoom comme ça ñu dégg. waaw mais anglais bi day diis man baal rek ma bàyyi ko noonu si olof bi ah. baal ma bàyyi ko noonu si olof bi. waaw kon suuf dañ lay bàyyi ko nga wax aussi ci seen ba nga wax sa gars a euh, a ci basket yëpp nañ nga wax leen ko ci seen. waaw léegi après xam naa boo ñu waxee bi rek ñu jox ko boo yëpp mm-hmm. part de suba ñu def ko seen yëfi bopp parce que lii dafa jafe quoi mm-hmm. parce que muy man yeneen i club yi nekk banlieue bi yëpp soxla nañ lu mel ni parce que ñun tey da ngeen ñu def surprise woowu la ñu defoo ñu verte lii mooy liggéey fekk ni ci li muy liggéey vraiment nga ko ciy jàppale Cheikh mi ngi koy wax sànq tey bëri na moom dama ko man damay day mbar ak gars yi ne leen Amérique euh, Modou Modou Amérique du ay caaxaan <laughs> te Modou Modou Amérique yi ñëw gën a oyof mu dama ci am ñoo xamante ne franchement bu ñëwee muy moom mii di Chérifo comprendre dañuy ñëw toog ak yow loolu rek am lu mu lay encouragé. xam nga tey jii gis nga fii fu dara newul Sénégal kenn du fa nekk fu dara ne rek la gars yi di groupe boo tey dañuy bëgg fu dara nekkul ñu participer suñu gox def fa dara mooy li mu wax xale yi ñëw fekk xale yi toog mu ne ma laay booy bi amul dàll dañ ko jëndal dàll li la ñu ànd sax bu ñu dàll yi ne ma laay booy bi mën na ko yii est-ce que du course bi di ko jël nga naan booy bi <laughs> comprendre nga vraiment ba pare tamit di jógee amee di la motiver fu mbaxana rafete mu indil la ko fu chet rafetee mu indil la kon ñu ngi lay teg ci condition yoo xamante ni vraiment dafa am solo ñu ngi koy ñaanal di ko xamal ne la vraiment moom it yàlla na ko suñu borom bi dimbali dimbali njabootam xam ne yii muy def nii exemple la yii nga war a mën a jàngal xale yi moom li muy def dafa ma arrangé ndax di wax xale yi xool ci diw ndaxte àdduna benn luxe rek moo am lu muy muy yàlla sunu borom bi benn màkkaama moo koy muy màkkaama yàlla beneen bi tamit dafa am lu ma fàtte sànq parce que am na ay chrétien chrétiens yi bu fekkee ñoom ñooy julli ñooy rawancé satala yi Eh, ñooy ramassé satala ñooy def affaire yëpp yóbbu ko teg léegi bu ñuy def mèche amoon na ci kenn ma koy nuyu Hélène yenn booy dañ daan ñëw dem taxaw bu ñu mees xam ne dañuy jàmbasante ñu ñëw jàmbasante ak ñoom seen koor bu ñëwee ñenn ñi jàppale leen fii ñoom suñu koor bu ñëwee ñu jàppale leen parce que tamit as tuuti dañuy jànguñu sax mi dañ koy dégg parce que dañuy wax lakkum diinikum wala diini comprendre na loolu jàppale nañ ba ñu ngi koy tàggat ci xale yi kon di gërëm géej géejawaay gi yëpp di gërëm tamit ay ñoom Cheikh Mbacke mi toog di gërëm Chérifo di gërëm Xaarim Bamba Sey Tafa Diop Youssou Tall ah di gërëm Ibou Fall mi ngi doon woo léegi France di gërëm géej géejawaay gi yëpp ku ñu limul sa tur tamit jàppal na ñu ngi lay gërëm di xam ne 16 basket du leen kenn lu ne ku ne la di remercier anciennes joueuses yi xam nga di leen encourager ñoom Cheikh leen dóor score ñoom Rama. di leen encouragé di wax ne sport noonu la merci Louga TV ca kaw ca kanam. Ah, ñu daal en tout cas def nañ partenaire ak yéen euh, duñu duñu duñu lépp loo xew le boo leen ñu woowee dinañ ñëw liggéey ci ak yéen vraiment di wax ne ñun yéen rek ñu tax a jóg banlieue bi rek euh, dinañ dem partout nag di gërëm ñëpp di gërëm aussi sama caméraman bi ma àndal muy Mamar di leen jox rendez-vous ci beneen émission beneen rendez-vous incha allahu rabbi ci li nga xamante ni mooy basket jërë ngeen